waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi. yaa jigéen ñi ci dul yaa jaaratullah sangu jigéen ñi ci dul yaa jaaratullah maami sëriñ jigéen ñi ci dul yaa garab maami Sëriñ Basiiru sang bu jigéen ñi ci dunya jaaratullaah bu jigéen ñi ci dunya jaarab maami Sëriñ Basiiru sang bu jigéen ñi ci dunya jaaratullah sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullah nasi bismil ilahi majud man la ilaha illallah Alhamdulillah ngeen di ci dundal yaatulaa na ci ngir ñëpp ñëpp ko gàddul boole ci yaare gañal yaaratulaa ñëpp ñëpp ko gàddul ci duwar di koy boole ci yaare gañal yaaratulaa raw da tuub mam jaare la ilaha man balaxaay mam jaaratullah yàlla ko alhamdulillahi karimi ndegam bi ndegam tuwaay man balaxaay jaaratullah salaamun alaykum sajaaratuna yaa dund Mariam yoo maam jaaratullah salaamun alaykum وسجارتنا يا ابن مريم وعالتنا حجاب مريم مرو اليوم يكون جارة الله مريم مرولة لا أكلمون اليوم يكون جارة الله عدما لا يكون الأمكن فينا الله بمبني خدما لم يكن لما لا يكون الأمكن فينا الله بل أتفق بمبني قدما قدما قدما لا الممكن من الله يا بمبني خاتما يا قبيل لا يقول الله ka siyaare siyaare ka yaram lu fi yow xol yaa giru yaa jor yaa giru la xol yaa giru yaa xol yaa giru yaa giru la sabal xol yaa giru yaa wala jor yaa giru la xol yaa giru yaa jor yaa giru yaa giru la sabal xol yaa giru yaa jor yaa giru la jox na

yaakilu yaa waaw jar yaa gi lay jox la loxo yaa gi yaa gi jar yaa gi yaa gi yaa xol yaa gi la jar yaa gi lay jox la loxo yaa gi yaa gi yaa gi yaa xol yaa gi la jar yaa gi lay jox la loxo yaa gi yaa gi yaa gi yaa ngiru yaa ngi njur yaa ngi leen la jox lool ko yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi jaara yaa jël si yaare laay laay la la su ko tey laay laay la la diya lillah jaara jaara waajal siyaare di la jara wàcc na te sukku tey jëfala ko waay di yëlillaay ngir maam jaaratullah maam jara waajal siyaare lay lay la sukku tey jëfala di yëlillaay jaara ko gër maam jaara tullaay yaa dégg yaa dégg si wàcc na sukku tey jox la ko war bi yalil la soxna si yaa jër si yaa aare ni sukku tey yaa bi yalil la ko gër maam jaara tullaay yaa jër si yaa aare ni maam jaara yaa jël si yaa rit maa lay la la suku tey jël maa lay la la hati yalil la ko jël maam jaara tula jaara yaa jël si yaa rit maam jaara wàcc na suku tey jël la ko hati yalil la maam jaara tula subhanahu wa xadim rasulillah la ilaha illallah قصر سمى الجارة الله كل قديم الرسول الله سمى الجارة الله أجل دبل سيارة جمام جارة خدوتنا دبل سيارة والإمام جارة جارة خدوتنا دبل siyaa wax leen maam jaara xutba ci la dem leen siyaa wax leen maam jaara xutba ci la dem leen siyaa ji maam jaara jaara xutba ci la dem leen siyaa wax leen maam jaara xutba ci la def fi Porokhane cey jaaratullah dem leen siyaa maam jaara moo nu wanu kunu doy رسول بامبا جاءت أشهد بلا تدعي دعي يا بامبا تدعي بكبل بلا تدعي دعي يا بامبا تدعي أبدا أشهد بلا تدعي دعي يا بامبا تدعي سلخ يا أشهد بلا تدعي دعي su Bamba doy a doy sa loxo jagal sa doy na tu doy doy na su Bamba doy a doy sa loxo sa doy na tu doy doy na su Bamba doy abadan te mooy done xayr xalqillaahi billaahi yaa nu doy yaa nu doy yaa nu doy yaa nu doy xayr xalqillaahi billaahi amaati jiji wa la ilaha illallah jaanu aqadiro na jaratullah jaaratu karamati fi diwani jaanu aqadiro na jaratullah wala asa taajul karamati fi diwani la ilaha تركنا جارة الله تاج الكرامات في وادي غير جعل أقادرنا جارة الله سم جرى رايون الأجدي والدبل يفا سلام يلب يوم جارة الله رايون الأجدي والدبل soxna jaara yaa doon sow turando mariama yaa ko firay yaa sere kunu fa yakun jaaratullah yaa doon sow turando sow turando mariama yaa ko firay يكون جارة الله مصطفى لسير اللي يا أمري أين يا أمري لبعد الوصايا جارة الله bari ay ndam la amit jërëjëf ya bari baatil wa zaahir haritula anta ya dutu amin niti ya dunu asal ya dunu fatimatu man jaratullah ya dunu amin niti أبلو عاسية كنو فاتل مدل أندارا دارت الله فقال يا دو أمين لا لا لا يا دو عاسية عافية دو فاتل مدل أندارت الله يا دو أمين أمين يا دو عاسية دو فاتل مدل أندارت الله فقال يا بل أين دم لا لا لا biti amani sa mbor faw jëf jaaratullah rabbil ay nam jëf biti توتر كايتبر فوجا جارت الله جار يا بول اي اندم لا لا لا بيت يا مطر صبر فوجا جارت الله يا بول اي اندم سدي بيت يا مطر صبر فوجا جارت الله سيارة بتوبة دم سيارة dem siyaara ji Porokhane jaaratullah na leen siyaara ji dem siyaara ji dem siyaara ji Porokhane jaaratullah na leen siyaara ji Touba dem siyaara ji dem siyaara ji Porokhane jaaratullah na leen siyaara ji Touba dem siyaara ji إذ بارك الله na leen siyaar dem ba كورخان مجارة الله ما توالو من نالو نالو كورخان مجارة الله مسبالي مام سوالو نالو نالو لرنا وابورخان مجارة الله سوالو نالو kula bu sa mam asawal ngena leral na poroxan mujaratullah akalo ngena nawelo leral na poroxan mujaratullah mam asawal ngena ورغان مجارة الله قالوا نامل نامل نامل ورغان مجارة الله جيين بويال نانو ku bëgg a ñëw déwén yëkkatil sa loxo ca kaw ñu sant soxna jaara def leen ni seen loxo ca kaw ñu mbooyal ay na ko njëriñoo yi bandinde yéen ñi booyal laanu yi bandinde maam jigéen ñi booyal bay da nga jëriñoo bay bandinde yéen ñi booyal laanu jarama man jarama man jara jigéen ñi booyal yaa ma jël jigéen ñi booyal la nu yaa ma jël jigéen ñi booyal la nu barkeel bay bëniñ dinaa ngi jëriñoo yéen ñi booyal nanu maam soxna jaara maam cheikh Muntaxa Mbakke jigéen ñi booyal ay ma barkeel bay bëniñ dinaa ngi jëriñoo yéen ñi booyal nanu maam Sëriñ Basiir bay bëniñ maam cheikh Muntaxa Mbakke jigéen ñi booyal nanu maam toroxa bay ma barkeel yéen ñi booyal nanu ma maam jaara jaara soxna si jigéen ñu booyal naan maam jaara mbay bañ koko mbay ma barkel ñu booyal naan awa so jaara ma maam jaara maam jaara maam jaara maam jaara jaara la so waay la day kara amma maam jaara maam jaara amu moroom masa am moroom am moroom yaa ko waral sa dooma rey karaama sa baal jaara maam jaara jaara am jaara maala wadi am jaara sa baal ay waay la rey karaama maam jaara amu moroom masa am moroom yaa ko waral jaara Pamam Jara Diwan Jara Pakam Jara Diwan Jara Lekayuwa Bisupyama Jara Pamam Jara Pamakama Pakamawa Lakar Kero Bisupyama Jara Pamam Jara Diwan Jara Tiyadun Jara am jaara faral sa doole waay la jompal jinne jaara maam am jaara am tey ay junne bare bare yaa ko waral yaa ko waral sa doole jompal jinne jaara jaara maam jaara am jaara am tidaaya am tidaaya faral sa doole waay la Jara Fulji ba mu doy sikki ba ba mu doy seere laa nga ba ñépp gi jël maam booy fu joore ay

ذللا لي لا زيادة تكلل لا لا لا لا سخنا جار لا لا لا لا أمر لك لا لا لا لا aw na aram dundal ak yàlla dundal ak yàlla Muntaxa yàgg fi Seex Muntaxa yàgg fi wala ay sabure boo fi yàggee dana baax mbooloo yërmande Serigne Bassirou Saba dama yow yaay borom Tuuba Cheikh Muntaxa yàgg fi Muntaxa yàgg fi te wér boo fi yàggee dama baax loo yërmande baba dama roy sa baax yàgg kan maam yow yaay borom Tuuba muy Tawfekh jugéy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 woote 77 251 04